ah dama ni bisimila ku doon laajte faali ngoye ngi nii seen produi naturel xarañ 100 pour cent bio yegg si na jaaxle na de la bi nga xamante ni ñu ngi koy defaree à base de plante teg si dama ni la amul benn effet secondaire xarañ rek ci yokku kattan ak cawarte éy xarañ benn jeeg meretu fi jëkkëram kon yow mi am jafe-jafe sa néegu sëy wooteel kaaw ci numéro yi 70 669 69 29 wala boog 77 317 03 41 ak xarañ ñëpp ay xarañ. démb baas bi démb lu ne lu gis naa ko ci man maam Ndiaye nit ku ne ñëw na nit ku ne ñëw na fu ne la nit jóge image bi ma daanoo ñu ne dañ maa sotti lu nekk yàlla rek laa taxaw ak yonent bi allah ji fàllu mag nit mënul ci man lu toll ni tarafatal ay ni bi ma dërmalee bi sama yaay daa dem wute ay ñaan jox ma bi ma joxee ñaan yi dama koo sànni ci buntu duus bi damaa sangu ba pare tari juróom-ñaari sëñ fàllu sotti ko ci euh, ndox mu mujj mi këppoo ko moo ma aar ba sama bis bi paase man kii rek laa àndal man kii rek laa doyloo sëriñ fàllu rek laa doyloo dawuma lu toll ni tarafatalaay yéen ñi may topp nag te bëgg maam Ndiaye yéen laay waxal bu leen déglu ma Samba bu leen déglu ma Demba bis bu ma tasee man maay taxaw ne leen carrément damaa góor damay respecté ba koroog yommal am jëkkër ju ma am daf may respecté ba koroog yommal xiyaam su may sëy gisuma man ci lu ma neex dama naan dégg ba gis li ma saf waaye bis bu ñu taxee man sama jëkkër boo ko doon may ay milliards du taxaw fase ma te ma it boo ma doon may milliards du ma taxaw ñaan baat milliards soo ko taxawoon ne ko faseel maam Ndiaye dul posé maam Ndiaye maam Ndiaye rek la bëgg li lu nit am li jëntiwul lu maam Ndiaye am waaye li ngeen koy tuumaal bari na li ngeen di wax ci deram bi bari na li ngeen di wax ci tuuma ñaaw na bàyyi leen sama sey bi te yàlla rek tax man wax leen ma lu ne man mën naa dékku lu ne ndax man gaynde laa waaye doomu jàmbur la man dékku da man ma may dékku ndax maa opté internet maa opté ñëw ci internet maa opté ñëw ci réew mi maa ñëw opté ñëw ci réseau sociaux yi man maa opté toog ak journaliste sey di wax kon yàq leen ma wax leen ma lu leen neex ndax man gaynde laa duma daw mu bu dee bu dee dafa nekk ni bu neexee nga taxaw bu naqaree nga daw buy neexaat du la fi fekk man mën naa dékku lépp waaye lu jëm ci samay doom sama sëy sama yaay sama papa nga la bàyyi leen ngeen ñëw ci man man mi bëgg internet man mi ñëw ci internet bi man mi ñëw 24 heures sur 24 ci internet bi di wax nga la yàq leen ma nga la wax leen ci man lu ñaaw samay bàyyi doom bàyyi leen ko ndax ku baax la ku ma bëgg la kuma ma suturaal la ku ma taral la ku ma taral la ku ma nawloo la barki sëriñ Touba ndax bi may takk awma dara sunu kër pauvre te tey mi ngi waroon a takk ay boroomi million ndax ndeyam boroom lam bu diis la mu ci banlieue bi xool ki gën a takk ko ànd ak moom ci souffrir boobu ba yàlla teral ko kon kooku amoo dara loo leen koy wax ci internet bi lu dul jaajëf ak jërëjëf dama leen ñaan rek sëñ Bada waxal ma man lu baax waxal ci man boo may wax waxal ma lu ñaaw waaye ngir yàlla ak yoon dama la ko ñaan sama jëkkër bu leen ko taf leen ko wax wax bu ñaaw samay doom bu leen ko wax wax bu ñaaw sama jëkkër dama ko bëgg te duma lépp li nga xam ne ni moo doon actualité ñu indi leen ko alors tey gis ngeen ñoo ngi kii di Mame Ndiaye Savon bu nekk troisième édition bi nga xam ne ni à chaque fois Kazu Rajab bu jotee moom da koy woote fii te moom la ñaanoon sëñ Fallou Mbacké alors maam lan ngay tëjee tey gis mbooloo mi tey nga woote ni wuy la daaw gisoon nañ ñu meloon waaye rey waaye ren gi dafa jégg dayoo barke Serigne Fallou Mbacké rek sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi sant samay ñaari waajur teg ci Àllaaji Fallou Mbacké bis bi ala ndaw mi nag réussir na kontaan naa ndax daaw ni mu meloon bu ren bi kenn xaju fi te leer na leen di sant ñëpp di leen gërëm di sant site internet yi waaye ren sëñ Fall dama rëq daf ma rëq ren ndax moom du bàyyi waayam sëñ Fall kenn du ànd ak moom mu di la seetaan waaye ki ma wéeru moo mat wéeru waaye allah ji Fall Mbàkke en plus lan mooy sa sa diggante ak sëñ la bëgg sëñ Fallu rek doyloo sëñ Fallu nag di tiitaroo sëñ Fallou di yaay sëriñ Fallou sëñ Fallou mayati na ma ndam dama daan wax yaay sëriñ Fallou amati na ndam dama naan yaay sëriñ Fallou Mbacké amati na kii nu ñu koy waxee médaille. médaille laa am fi mu ne ndam yi dafa bëri médaille laa am barki sëriñ fallu Mbacké sëñ Fallou nag li ma ànd ak yow tiituma ko ragaluma ko ba jaaxlewu ma Fallou bu sa yaa ma sagal man kenn nawloo ma woon kenn bëgguma woon territoire laa nekkoon di tëdd ci carton yi leer na Sénégal gépp gazuwaali jàpp ma lakk ma ba ma ñuul damaa meloon ni bun na kaa rapide sëñ Fallou raxas ma ba ma set sang ma ba ma set solol ma mbubb yu rafet teg ma ci avion yu borom zipp yi waaxu ma yuuxu fi mu ne dama am xaalis sant yàlla sant yàlla sant sëñ Fallou dama sonnoon territoire laa nekkoon sonn ma sonn jaay naa ndox jaay naa lu ne yen ñëpp bu leen découragé bu dee man mi la yàlla teral barke Alaaji Fallou Mbacke yéen ñëpp la yàlla teral am bi laa naa def naa lu ne barke Serigne Fallou Mbacke déggal alors fu mu yi nii mu teral la teral ñi nga xam ne ti mooy say morom tey mën nañu wax ni bis bi bés réconciliation la nga gis ñu xam ne ñu bari euh, Mame Ndiaye sama bokkoon ñoom liggéey wala xamante ak ñoom wala moo ngi nekk ak ñoom si tey ji ñëpp a ñëw. dama jaaxle tiit barki Serigne Touba Mbacke Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar tey Sénégal gépp ma wuyu si billaahi wallaahi wal kitaabi ku ñëwul yëguma ko ndax tey ñi ma gis te ku ñëw rek dangaa indi sa doole. ndax bisub sëñ Fallou bi lu ci waaye def bu nekk dala yàlla dala koy fulal sëñ Fallou kenn du ko may benn te du la may fukk bañ ne ko daane juróom-ñaari sëñ Fallou danga koy may benn mu may la mu dolli la juróom-benn mu nekk juróom-ñaar. waxaa tey lii day signifié rek ëllëg bis ngi tey dootuñu dégg Mame sa Savon si benn histoire wala benn problème parce que fumu mu toll nag ñëpp ko jox bopp. tey laa gën a mën a histoire suñ ma bàyyee tooñ. tax lool man dama ku ma yàpp bugguma ku ma manque de barki sëriñ Fallou ndax gaynde laa bisu sëñ Fallou bi kafu ma ci réew ma ci ndax sëñ Fallou rek laa bëgg waaye kenn du ma yab. mais sa jotul tamit des fois maam ba mu fekkee la tooñ sax wala dan lay yab sax nga bàyyi suuf nga nga baale. man xullooy sama gàllaaj nga naan ma bàyyil ci suuf kii wér na sama gàllaaj nga ma bàyyil ci suuf yéen da ngeen wax nag waxu nit yéen journaliste man xullooy sama gàllaaj. kon doo bàyyi xuloo yàlla tere. alors maam bu temps bu ñu déggee si nga toog yaa ngi wax naan danga doo bàyyi xuloo des fois ñu gis si say say say say euh, TikTok say direct ngaan góor day dëgër ñu bëri jàpp ne maam kat dafa am ki nga xam nii moom lay gaarwaal muy jëkkëram. jëkkër ja oh, sama jëkkër laa gaarwaal kon de ma manqué fay biram penda waagaan dugu dugu waagaan su waagaan waagaan ko ma sàññaan mu bëgg ma loolu tekk ma ci farataag yàlla ak sunna su Muhammad ma jural ko doomam i am bisu Allaaji Fàllu Mbàkke di gaaruwaale sama jëkkër kon ma manqué moo ma jox warugar teral ma xewal ma xew mu rëy teral ma ay waay tey ngeen a bàyyi sama sëy bii ngeen yàlla yàlla ni euh, euh, jinjeeru takk man ma tas liwu ma fam naa ne tas bi yàkkamti ngeen ko ndax chaque jour ngeen wax ko waaye man waaju ma tas waaju ma tas barke allah ji fàllu ba man buñ ma fasee dew ma ñu ñàkk maa fase dew ma ñu bulee ma dew ma ñu buux ma dew ma xanaa maa mën a sëy réglé leen maa ñàkk jox nga takk ñeenti jabar ma toog di muñ xanaa maa mën a sëy sëñ Fallou rek laa yaakaar sama doom ji ma am ko di sëñ Fallou tas du ngeen ma ñaanal jàmm tey wax waxu nit daara ma ñi nañuy wax waxu nit daar manaan la daar ma demaat tiit ci wax ji dafa jot nga leeral parce que ñu bëri jàppoon nañ fu mu toll nii maam Ndiaye kat fu mu toll nii tas na ñu bëri na loolu wax man tasuma te bu ma tasoo ni damaa pànk damay taxaw ci site internet yi ne leen tas ndax daw ma dara ndax yàlla ba muy tudd sëy daa bind tas te tasit du fi mbañ ndax si réew mii tas du fi mbañ waaye nag tubaarkàlla bis buñ ma ma buñ ma mayee baat man ma taxaw man maa ko inte yéen yéen ñi da ngeen maa dàq wax da ngeen maa dàq jël su ma nee salaamaaleykum taal sama directive ñëpp may déglu dama naan leen salaamaaleykum bañ na maaleykum salaam ma ne leen maam Ndiaye na te bu boobaa wax du am bal du tàq fetal du jóg ndax ba ma lekkee warugal damaa natt ci kaw doom. kon maam amul benn problème ak ak ak sama jëkkër benn problème dadi man maa sonn ci wax jeeg jaabante beeg dama ko ñëw xam nga lan mooy jaabante beeg dama ko ñëw ak leeral réew mi bañ may maye warugar bi kenn nanguwu ko. internet bi nangul sama warugar ñu takk ma ci farataag yàlla ak sunna su Muhammad tey internet bi taxaw ne ma damay tas bi may sëy dama leen a tàggu bañ may tëggal baara mbay dama leen a tàggu ba may baas di sol robe mariage dama leen a tàggu kon tey ngeen a bàyyi sama say bi ngeen ni yàlla yàlla ni takk euh, kiiwu jinjeer journaliste yi maa ngi leen di remercier yéen laa njëkk a remercier def ngeen lu rafet kontaan naa ci yéen seen liggéey rafet na di sant ñi fi ñëw ñëpp di sant daa mi sama waa ji maa ngi moom dafay yàgg barke Serigne Touba gëj na ñoo déggante waaye dama ne lu yàgg dëgg la nit booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci ngor ak personnalité ndax tey ànd bi bu dul woon ngor ak personnalité du ma fekk si nanu bàyyi ànd bu ñaaw di sant allah ji sal mbay mi sama waaji ji di sant ñëpp ñi fi daje ndax su ma tuddee tur dinaa juum de ndax ñi fi ñëw daa bari maa ngi